di ñaan nag ñu baal ma àq ndax àdduna moom ànd nekk benn men ñu bokk ndey ak baay rek a fi xaj yaatu na yàlla mii ñu sàkk yërmandeem yaatu na donc nañ baalante ak ñun ñëpp at mii ñuy dëkkmal doon at bi gën ci at yi yàlla na leen yàlla defal jàmm di ñaanal yàlla di jéem maxtaar yàlla na ko yàlla defal xéewal ak képp ka nga xam ne mu ngi yeewoo parcel Assainies ak Sénégal yëpp rawatina Sénégal yëpp jërëjëf di leen xamal ne nag incha allah ci waxtu yu néew u fan yu néew di ngeen am nouvel album Bil Diakhou ñu naan ko Goro waaw comme ni ma koy waxee rek à chaque fois def loo mën wax loo mën boo tëddee nelaw ndax kat àdduna bi changé na changement boo xam ni boo nee da ngay def loo mënul yaa ngi nax sa bopp yaa ngi lor sa bopp boo fi lebee xar bu la ëpp doole ndax say walla ngis ngistal yaa ngi yaa ngi tooñ sa bopp yaa ngi nax sa bopp yaa ngi indi sa bopp problème nañ ko dundee ni ko yàlla waxee boo amul ganaar boo amul xar nga rey bëy boo amul bëy nga rey nag boo amul nag nga rey euh, ganaar boo amul euh, kii gëléem boo am gëléem nga rey ganaar boo amul yooyu yëpp nag nga jël sa loxo tàllali sa loxo yàlla togg sa sumbi bu neex ndax kat biir du fenn jërëjëf di ñaanal ñëpp di leen xamal ne tabaski euh, sunna la faratala la sunna la waaw ndax rendim xar mi kooku moom mooy faratali je pense bien mais li ci des yëpp sunna la sañ sa yeeg dem julli jeeg yooyu yëpp sunna la loo ci mën rek na nga ko def li sa poos attan rek na ko def yàlla may ñu jàmm may Sénégal jàmm lii ñuy dëgmal muy les élections yàlla indi fi jàmm sénégalais yi conscient xam ne ñoom ñëpp war a ànd nekk benn mel ñu bokk ndey ak baay. waaw li ma leen mën a may moom mooy ba mu ne cëpp ci kër gi la ko gorom tàmbalee di ko tongoo bëgg a jëkkër ba tax mu ne patt doyloo yàlla di wéy ak juru fa doom waaye ma nga mel ni ko fa sëy ay at jëkkër da doon benn nopp yaayam yilif ko lu mu ko wax mu gëm ko teg ci singali ko tonton gàtt buy def lu ñaaw du ko waaj fu mu tegee ndab mu tël te bu ko mbéj mu daal di sab ci doomu jàmbur sëy ngir yàlla dëgg la faxel ba say goro bëgg la sëy tey goro yi dañ ci rax caay caay salli wa sallim daiman abadan ala habibika xayril xalqi